الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه بهداهم الى يوم الدين اما بعد بك جلدي daal di dégg sama bopp ragal yàlla leen ko dénk jiitaloon nañ ci ñaari xutba leeral wàccuwaayu asaka ci lislaam ak li nekk ci joxe ko ci ay jariñ ak li nekk ci ñàkk koo joxe ci ku mu war ci ay lor ci àdduna ak àllaaxira leeraloon itam alal yi nga xam ne ci lañu war a génn asaka tey xutba bi mu ngi jëm ci asaka ji buñ ko génnee fan lañ koy jëmee suñu boroom tabaraka wa taala tudd ñi nga xam ne ñoom lañu war a jox asaka wala fi nga xam ne fa lañu war a jëme asaka ci aaya juróom benn fukk ci suratu tawba suñu boroom ne innama sadaqaatu sarax yi nga xam ne farata la di azaka lil fuqaraai wal masakin wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal xaarimiina wa fi sabilillahi wa bni sabil faridatan min allah wallahu alimun hakim suñu boroom tabaraka wa taala tudd na ci aaya bi juróom-ñetti xeet juróom-ñetti façon yoo xam ne ca la ñuy jëme asak façon bu jëkk bi mooy bu ak bu ñaareel bi mooy faqir ak miskin léeg-léeg bu ñu tuddee faqir rekk ci benn barab mën naa yóbbaale miskin wala ñu tudd miskin ci barab mën naa yóbbaale faqir waaye bu ñu leen boolee tudd nag dañuy daal di am ak rawaate dañuy wax ne faqiir moo gën a tar aajo miskin bokk na ci la koy tegtale Cheikh Abdourahman Saadi ci tafsiram mu ne suñu boroom tabaraka wa jëkk jëkke gi mu jëkkee faqiir loolu day tekki ne kon moo gën a aajowoo ndax suñu boroom la ëpp solo loolu lay jëkkee teg ca la ca des faqiir moo bu ñu firee ko ne mooy koo xam ne moom amul dara wala sax am na dara waaye loola doyu ko la mu mënta ñàkk ci ab dundam ak njabootam lam mën a am loolu mënu koo matale mënta matal sax genn wàll ga ñu ne miskin nag mooy koo xam ne moom am na loo xam ne mën naa matale genn wàllu li mu aajowoo bu ëpp ba teg ca dalal waaye moom itam nag amul lu matal li nga xam ne moom la soxla ci aajo ndax bu fekkonte ne am na lu matal aajoom kon boobaa day génn ci ku ñu war a jox dafay daal di nekk ku woomal ñooñu nag dañ leen di jox ci asaka loo xam ne dana leen fajal seen ñàkk googu ak seen tumuranke googu xeetu ñetteel wi mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci asaka képp koo xam ne ma nga cay liggéey moo xam ku koy sàmm la ku koy garde wala kuy dem di ko laaj ca ñañ ko war a laaj la wala buñ ko laajee ba noppi ñi nga xam ne ñoo koy sàmm wala ñi nga xam ne ñoo koy jële ci barab di ko yóbbu ci beneen barab wala ku koy bind képp koo xam ne daal ma nga cay liggéey dañ des na leen ca jox loo xam ne lu dëppoog seen liggéey boobee ñu cay def la muy payug seen liggéey boobee ñuy def ci mbirum asaka bu fekkee nag dañoo nekk ñoo xam ne nag moom ñu ñu embauché lañu ay fonctionnaire lañu nga xam ne dañ leen di fay ñu am seeni salaire nga xam ne loola dañ leen koy liggéeyloo loola kon bu boobaa moom duutu ñëw asaka ndax lañ leen di liggéeyloo loola daf caa tàbbi ci ka leen jël di leen fay ca loola waaye su fekkente ne nag moom loolu ñu leen liggéeyloo kenn nekkuñu fonctionnaire kenn ci loolu rek lañuy am dara bu boobaa kon dañ leen ci jox seen cër xeetu ñeenteel bi mooy almu al muallafatu qulubuhum ñu ñuy miinal seen xol imam ibnu taymiya rahimahullah mi ngi wax ci majmuul fatawa nee na ñooñu ñaari xeet lañu koo xam ne duggagul ci islaam ak koo xam ne dugg na ci lislaam mu ne ki duggagul ci lislaam benn mu doon koo xam ne dañoo yaakaar ne bu ñu ko joxee njariñ dana ci juddoo benn mën naa tax mu dugg ci lislaam tuub wala am na lor ju ñuy ragal ci moom joo xam ne loolu ñu ko jox dana tax loram jooju dàqu bu fekkente ne mënta dàqu ci lu dul loolu ki nga xam ne mu ab jullit la mu doon koo xam ne ku ñu déggal la ci biir mbooloo ma mu nekk ñuy yaakaar ci jox gi ñu koy jox moom it benn lislaamam gën a rafet walla lislaamu ay nattangoom yu tolloog moom daraja loola tax ñoom itam ñu dugg xemmeem lislaam ba dugg ci wala mu doon koo xam ne am na ñu mu yilif ñu war a joxe asaka ñoo xam ne moom rek moo mën a am kàttanu man leen a forcé jël ci ñoom asaka muy nit ñoo xam ne kenn mënta euh, jël ci ñoom asaka lu dul dafa ànd ak xaw leen a forcé te moom am na baat ci ñoom yooyu yëpp dana tax ñu jox ko ak itam nag feggu lor joo xam ne mën naa bàyyi ko ci moom su fekkente ne lor jooja mënte fegoo ci lu dul jox googu ñu koy jox juróomeelu xaaj bi mooy ar mooy ak njaam jaam boo xam ne dafay jotu xam li ñu tuddee mu kaata ba jaam boo xam ne ab sangam daf koo wax ne soo joxee nangam da nga gore muy dem di wut loola loola war nañ ko caa dimbali ci jox ko asaka ngir mu mën a jotu ak itam koo xam ne jullit la boo xam ne dafa ne ci loxoy ay noon yoo xam ne la ko fa téyee alal ca la bokk loola joxe ca alal ngir kooke mën a jot boppam muy fokku raqaba loola itam bu boobaa day bi ci biir asaka day doon sax lu yey lool juróom mbenneelu xaaj ba mooy koo xam ne dafa yore ay bor loolu itam ñaari xaaj la koo xam ne dafa leb ngir defare ab diggante ak jote gu am ci diggante ñaari kuréel wala ñaari jëmm aw ay wu tar man caa juddoo mu dox ca diggante ba te diggante ba defare ga laaj alal te moom xëy na amu ko wala même bu ko amee itam sax war nañ ko caa jox ngir loola mu jox alal kenn wala mu jox leen ko ñoom ñaar ngir defari seen diggante loolu dana tax ñu jox ko ci asaka ngir mu gën a sawar ca loola gën ca amuk dogu gën caa dëgër donte sax ko woomal la waaye gannaaw alal ja moom lekku ko defaree ko ab diggante moo tax mu jóg yonente bi sallallahu la wasallam waxoon na saxaaba bu ñu wax xabiis xabiisa ibnul muqaariq ne ko na xam ne laaj dégganul ci lu dul ñett ñett yooyu mu tudd ci koo xam ne dafa am lu mu gàddu mën a gàddu bor gàddul nit bor wala daal gàddu lu war ay diggante ay nit mu ne loo kooku mën naa laaj ba ba muy matal loolee nga xam ne moom la gàddu woon su ko defee nag mu daal di jàpp nag bañ a tey continuer di ñaareel ba ci alxaari moom mooy koo xam ne moom dafa leb ngir boppam moom ci boppam moo soxla moo nekk ci jafe-jafe ci wàllu liggéeyam wala daal wàllu aajo yoo xam ne xëy na mënu ko ñàkk mu leb léegi mu am jafe-jafe ca fay bor ba kooku itam des na ko jox loo xam ne luy matal borom boobee la juróom ma ñaareelu xaaj bi mooy nag aljihaad di borom bi ne fii sabilillah mooy lépp loo xam ne luy jëmee lislaam kanam la moo tax yenn borom xam-xam yi yaatal ko yaatal bunt boobu lool ni mooy ëmb na lépp loo xam ne luy dimbali diine la lu koy yëkkati la luy tasaare daawa bi la luy kaweel kabdoog suñu borom la tabaraka wa taala loola lépp luñ ca fere rek day dugg ci baatu jihaad ndax jihaad tekkiwul rek xeex jihaad baatu jihaad moo gën a matale kalimatu alqital borom baa ngi wax ci alquran wajahidhum bihi jihadan kabira bihi ay bil quran kon alquran ci boppam sax dañ ciy jihaad ak li nga xam ne Abu daaw soloo na ko jëlee ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jihaad leen ak bokkaalekat yi ci seeni alal kon alal dañ ciy jihaad ak ci seeni jëmm ak seeni làmmiñ moo tax kon baat boobu fi sabilillah jooju ñu fiire ko jihaad waaye nag jihaad lu yaatoo yaatu la lépp loo xam ne luy aaral islaam la di ko jëmee kanam di ko gën a tasaare rek day tàbbi ci baat boobu juróom-ñetteelu xaaj bi mooy ibnu sabil mooy tukkikat boo xam ne dafa dog maanaam amatul lu ko jàllale mënatul a delluwaat doonte sax woomal na fa mu dëkk ci réewam waaye nag loolu bu dee ci jamono jii moom nga xam ne foo nekk moom manees na laay yónnee alal foofa ah loola moom bu boobaa bu fekkee am na moyen buñ ko ko mën a yónnee loolu kon bu boobaa du bokk nag ci ñi nga xam ne ñu ñu war a jox la waaye su fekkee nag amul benn moyen buñ ko mën a yónnee dara te itam amatul dara lu mu mën a jàlle wala lu mu mën a dellu fa mu jóge woon kooka moom la ñuy tuddee al musaafirul munqati' dafa dog léegi aw yoonu mënatu la jàll te itam mënatu la ñibbi danañ ko jox lu ko mën a delloo ba mu delluwaat fa mu jóge woon juróom-ñetti xaaj yi suñu borom tabaraka wa taala tudd ci alquran mooy ñi nga xam ne ñoom rek la ñuy jox asaka borom bi ne faridatan min allah farata la ju bàyyi ko suñu boroom moo ko dogalal boppam doomu aadama amu ci genn soppandiku gum ciy def suñu borom moo ko dogal ci xam-xamam ak xikmaam moo tax mu tëje aaya bi wallahu alimun hakim yàlla dafa xam te dafa xereñ moo tax lu mu ne nañ ko teg foofa rek barab booba dong foofa la yàlla juróom-ñetti xaaj yi nag day dellu ci ñaari mbir koo xam ne dañ koy jox ngir aajooy boppam lu mu mën a jariñoo lu mel ne faqir ak miskin ak ñu mel ne ñoom ak koo xam ne dañ koy jox ngir aajowoo guñ ko aajowoo moom ci boppam mel ne kooku di jihaad wala kooku di daawa kooku di tasaare xam-xam nga xam ne dees koo soxla xeet wi moo ko soxla loola ñu koy jox ci ay moyens yu muy defee loola loola moom njariñu lislaam lépp la moo tax si abdourahman saadi di wax rahimahullah ne ñi woomal buñ doon joxee seen asakay alal ca anam ga ko sari ak jéglee nee na kon faqiir duutu des ci biir jullit yi te nee na kon danañ am ci ay alal yoo xam ne lépp loo xam ne lu ñu bëgg a faj la ci aajoy lislaam danañ ko mën a faj lépp luñ soxla ci mën a jihaat ak ñi nga xam ne ay noonu lislaam lañ booba itam danañ am lu ko mën a def ndax asaka dafa doon loo xam ne dafa war a faj ak ñàkk loolu nag moo tax faw mu doon lu ñu dajale ndax kenn ku génne asaka rek ma ngi koo jox kenn koo xam ne ñàkkam dana jaf fajoo jafe na waaye bu ñu ko dajalee nag ñu baree baree bari joxe seen asaka joxe ko ci benn jiha muy benn direction boo xam ne moo ko yor dajale asaka ya mu bari lool mu étudier mbir yi ña nga xam ne nag ñoo ko soxla kenn ku ca nekk ku ci laaj jàngal métier ñu jàngal la métier ku ci laaj am métier ba noppi laaj ñu financé la ñu financé la ca ba noppi wut ñu lay topp nag ca lañ la defal ba xam mbaa doo ko yàq danga ko jaarale ci yoon wa nga ko war a jaarale loolu mooy tax asaka man fii jëli ak ñàkk waaye nii ñu koy joxee di comp di joxe nga xam ne kenn ku ne lañ la jox mënta réaliser dara da nga koy lekk tàllalaat sa loxo loolu mooy tax faqir yi ak miskin yi ak ñu ñàkk ñiy laaj at mu nekk day gën a yokk day gën a bari ndax ñam ñam ña ci jiitu woon ñooña ba tey ña nga ca ak ña leen ca fekk si waat moo tax kon mbokk yi nañu xër ci lu ñuy def ci mbaax ñu di ko def ci barab bañ ko war a def di joxe asaka ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo loola ci la nit ki aw loosam di sete nga xam ne li ko waroon wàcc na ko te asaka itam lañ ca jublu woon am na su ko defee ñekkoon ay faqir ak i miskin mën a génn ci seen ñàkk googu suñu borom tabaraka wa taala barkeelal ka koy joxe waaye barkeelal itam ñañ koy jox ñu mën koo jëriñoo ba dem bay génn ji asaka ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa mu xamal nu loo xam ne lu nuy jariñ la te wërsëgal nu jëfe li mënu xamal te nangul nu nangul mbooleem jullit ñi suñuy jëf yu baax innahu samiun mujib wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain